ñu taxaw un peu ci match bi nga xamante ni war na am le 12 entre le Sénégal ak l'Algérie mhm. nekk match amical mais match amical bu am enjeu match bu am solo mhm. euh, tey en direction yéen naka ngeen koy waajalee waaw ñu ngi koy euh, waajal nag sur tous les plans loolu sax moo tax na sama waa ji ñu ànd moom dinañ ñëw ci moom mhm. waaw looloo tax ñu ànd moom donc waajal match boobu dafa gum nañu ay réunion yu bare démb rek euh, ñu ngi réunion biir stade ba avec toutes les parties prenantes imaginez-vous de dix heures à 16 heures. Mm -hmm. que donc on vraiment de cerner contour yooyu parce que match la bi nga xam ni dafa am enjeu yu bare léegi wax naa enjeu sportif yi. li wax léegi c'est l'enjeu sportif. mais dafa am aussi enjeu organisationnel bu ñu am ñun Sénégal xam nga Sénégal boo jëlee tey stade boobu ñuy footballé barewul si Afrique. stade Maître Abdoulaye Wade stade am na ay conditions yu ñu fay organiser am na ay normes yu ñu fay organiser aussi. Mm. waratuñu wàcc foofu. waratuñu wàcc ci norme yooyu loolu moo tax démb suñu réunion boobu yàgg ñu saytu nag aspect yëpp organisation sécurité médicale vraiment aspect lié au match yëpp mm-hmm. boo ñëwee maintenant ba si sur le plan sportif c'est vrai que c'est un match à enjeu dañu seq ak suñu ay naataangoo yoo xam ne dañuy xëccoo mm-hmm. mais dañu leen bëgg a dalal aussi comme ni ñuy dalalee gan ni ñu teelew buur am dinañu football si jàmm euh, am victoire parce que mooy suñu mbébét aussi mm-hmm. mais kenn du mer daal ñoom xam ne leen leen gunge nañ leen ñu ñibbi gagné nañ leen mais kenn du mer donc si foofu lañ toll daal. d'accord noonu la organiser match bi.